seen émission guddi aljuma di am alxames bu jot ci seen rajo Baol Média FM 22h30 ak seen mbokk seen xarit ndongali Moustapha Thiam ndongal borom Daaru Salaam ñu ciy waxtaanee jàng ak jàngale mbooleem xam-xam bu doomu aadama mën jariñoo ba tax na alxames le 25 avril 2024 ñu fas yéene dalal monsieur Ibrahima Dione monsieur Ibrahima Dione di directeur u institut virtuel du Sénégal xam-xamam màcc jëm ci jàng ak jàngale yi doomu aadama mën a jëfandikoo am xelam ci xam-xamam ba mën a jariñoo jariñi ci ci seen rajo télévision Bawol Média FM 88 point 5 bëgg a tàbbi ci jataay bi mën ngaa def 88 628 19 05 88 628 19 05 wala nga def 88 628 81 08. nga ko seetaan ci Facebook wala YouTube fépp foo mën a nekk ci àdduna wërngal këpp. xamees 25 avril 2024 seen rajo Baol Média FM 22h30 شكرا